El Hadj Babacar Mbengue mi nga mi le président du conseil des notables de Yoff moo summeeku si ndey Ousmane Sarr parce que a 90 ans Jaraf Sénégal, mi nga mi le chef de village de Yoff moo summeeku si Souleymane Sarr nous koy wax conseil des notables bu collectivité lébu de Yoff yokk Sublime. si lim alxamis fukki fan ak si weeru avril bi le conseil bi tabb Jaraf Souleymane Sarr ak ndey Ousmane Sarr si teewaayu juróom chef coutumier Le jafe de si Yoff unanimité bi am ci suñu ndomb gi lu ñu war a saluer la ñun moo tax ñu war see def lu ñu man man day gëñ naa ne lépp luy defar Yoff dinaa ci dugal sama loxo loolu lañ ma sante te loolu laay doxe pal gi ndëkk defe naa ne du bànneex ku yaakaar ne bànneex la da ngay nax sa bopp daw naa ba sonn doot ñu doon ma ko def daw naa ko nangami at temps bu sama yaay waxee rek ma ne ko baal ma rek ba si kanam waaye ndëkk bu la Yoff jiitalee sa këtal la doo mën a bañ. di ñaan ñëpp ku si ne ak loo mënoon téye nga delloo ko nga bàyyi ko nga teg ko fële ñu ànd bokk ndey ak bàyyi joxante ay loxo te xam ne askan wi rek moo ñu ñor suñu dëkk moo ñu ñor ñu fexe def fi lu baax teg fi lu baax defal nit ñi lu baax ndax bu ëllëgee njëriñ mën a génn si dëkk bi fas kenn nag sëgg tëdd. nek jaamu askan wi. di kaddu yu ñëk yu ñu gannaaw ba ñu faloo ko si askanu yoof ñi fété si nguur gi itam wuñ leen si kaddu yi. duñu bàyyi suñu loxo ak suñu kaddu pour waxanteeg ñi nga xamante ne ñoo ilif réew mi pour waxante ak ñoom pour que ñu dolli ak di jàmm si réew mi parce que tey jii mën nañu wax ne le président de la république moo ilif réew mi yëpp moo ko ilif tey moom fal mu yor réew mi wax askan boo gis dafa am nu muy doxee. ñun dañu mën a tëdd njaaxaanaay waaye njaaxaanaay lii du taxaw ne dañu bañ ñi kontar buur ñun buur la noo àndal ndax ba nu amee soxla ëllëg nuy njaboot def la neen wala la ñu warul def danoo ñaani buur pour ñu bàyyi sunu njaboot bon danoo ànd ak buur loolu moo la ànd ak buur bi parce que dañu si am intere te xam ne ñun ñi nga xamante ne ñi tey ñoo sàcc Cap Vert sàcc sàcc Ndakaaru dañu am cër boo xamante ne si état. li nga xamante ne moom la état warlu si suñu diggante mu di koy def li nga xamante ni la ko war a def yoof dëkku mag la dëkku cosaan la dëkku aadala mag ñi ñoo yore dëkk bi waaye ama ay ndaw yu naan seen ataaya ba seen biir fees ñuy saisir autorité étatique maa ngi alerte état bi yoof tëddeewul noonu kenn ci magu yoof yi teewoon ci janook taskatu xibaar yi soñ bu baax jaraaf ak ndey ji réew yu ñu tabu yees ak ña ko teewee ngir ñu gën a ànd te boole xol yi ndax da guléet lu toll si juróom-ñeenti chef coutumier dajaloo ci xew-xew wi ni mel